jërëjëf mbokk internet yi ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mooy Albarka euh, moom la nag tiis ki dal seen kaw euh, moom seen kër moo laq maanaam euh, Albarka ñu ngi lay masaw di la nuyu aussi ñu bàyyi la nga nuyu ak moo mbokku internet yi. waaw ginnaaw ñu sant yàlla di leen nuyu bu baax yéen it di leen masaw yéen it waa li xew gis ngeen ko waa kenn ñaan yàlla safaan mais yàlla tamit. lu mu def xëy lu gën la waaw ñun tey li ñu daal kuñ ko waxoon duñ ko gëm waaw néeg làq fekk dara génnul dara dara dara génnul ci ñaari appartement dara génnul waaw est-ce que mën nañ xam euh, mën nga ñu dikkalaat ci affaire yi nu mu demee waaw yëf nag man mun naa ne waaw man dama ñëw maanaam jël sama beggu euh, tante abu ko ko parce que dama saadoon sama gaz indi léegi sama mbég daa yàqu ma abu ko béegam parce que dafa guddi ma jóge entraînement léegi ma ne woon su ma defee sama soxla ba pare waaw suba su ma yeewoo exemple su ma yeewoo après ma ma delloo ko bég bi ma naroon dem entraînement bi denti ay huit la ma fëgg sept huit heures moins ama mu ne ma mbër jox bég bi ma ne amul poolem fekk sama buntu tëjuwul léegi ñoom ñu ngi doon saaf beñe ci euh, ëtt bi noonu xam nga léegi ñu ngi taal fur fourneau côté be léegi man damay desserrer euh, lii bi damay desserrer gaz bi damay desserrer beg bi pour jox leen ko mu koy desee ba fu muy waaj jeex rek affaire bi ne pëf dóor ma fi yaa ngi gis waaw gaz bi ci li bec bi ci boppam moo moo bàyyi gaz bi moo tëb dóor ma fi léegi affaire bi nu mu doon suusee noonu liggéey na ma ne dama koy xëcc pour bës euh, lii bi ci biir pour mu arrêté léegi xëcc bi noonu affaire bi gën a am doole mel ni ndox daal mel robine robinet buñ tijj affaire bi xam nga gis ma mooy loolu ma affolé mënatuma mooy loolu gis na waaw léegi awma fu may jaar mën naroon jaar palanteer far ma tarxis daanu rek bopp bi féetee ci bunt bi ci laa jubal ci bunt bi mais génn bi ak xal bi nu muy takkee nekk na benn parce que gaz bu génnee fekk dañoo taal exemple benn fourne nii wala beneen gaz dafa tax da koy xëcc léegi looloo xëcc nag rëerañu ñun ñëpp ci kër gi fekk sama tante muy ci biir mais moom dafa toogoon di jàppale sama rakk ñuy saaf beneen sama benn raq bi moom mu ngi ci état dafa toll maanaam dafa dafa dafa waaw dafa jël biir moom muy tëdd ci biir di nelaw xale bu am sept ans ku góor ki muy tëdd foofu ci biir sama mag bu góor muy tëdd néegam léegi flamme bu mu amee ba affaire yi ñun ñëpp kenn mënul presque daw man ma jaaxle parce que affaire bu ma duggee man gisatuma man ni ma doon dawee di génn sax comprendre ma ba ni ma wàccee escalier mais damay wàcc premier escalier deuxième rek affaire bi ne bëm malheureusement fekk sama mag bu góor bi moom affaire bu mu jógee dafa tëb moom dafa tëb ci balcon bi troisième la jóge tëb jéem a wàcc noonu ba deuxième bi duggee noonu après ci la wàcc sama rakk bu jigéen bi mënul tëb moom dafa ñëw heureusement comme genre fii li ñuy weeree nii ak lignes yi yooyu moo ko may sens parce que dafa bàyyeeku rek dal ci lignes yi téewaale loolu ko may sens mu daanu mais ginnaaw mi lii yëpp làkk na yaa ngi bu mu daanoo noonu te moom dafa xaw a biir xam naa ginnaaw gi moo problème tuuti xam nga xale bi tamit lakk-lakk bu metti moom fu mu toll nii muy bloc ñoom ñaan ñëpp amul luñ defut pour gis leen yaa ngi gis papam mu ngi fa yaayam mu ngi fa mais rongoñ lañ fa nekkee parce que nangu ñu wax li am yëpp man nag woo nañ ma wax ma mais man lañ ma wax man ñeme ma ko wax kenn te du ma ko wax kenn li ma mun mooy noppi ñaan yàlla yàlla suturaal ñu parce que jigéen ak góor bokkul baayam nag woo naa ko waxoo ko en tant que góor yàlla ni man nee naa ko ne nañ booy bi moo gën a nekk ci daan te booy bi dafa sonn a ngi gis waaw luñ mun nag mooy bàyyi loxo yàlla waaw noonu la demee. tey mu nekk lu lu tiis comme ni nga ko waxee lu metti mu dal seen kaw. Euh, Zahra waaw maanaam politiciens yi nekk Liberté yëpp ñu ngi leen di tàllal loxo waaw. Euh, léegi euh, ba tey xaarantu benn question euh, ci biir ci biir loolu ginnaaw jéeye bi ni mu amee gis nañ ni que sonn ngeen parce que dara desatu fa parce tey ji boo bu ñu nemmee ko bi fi nguur gi ñëwee tabaxal leen li nga xamante ni mooy ay kër est-ce que jot na parce que ñu ngi naan xale yu góor yi ñoom ñoo ñëw fay li nga xamante ni mooy làq bi avant sapeur di yegsi est-ce que effectivement fay noonu la demee. waa loolu moom noonu la demee ñun nguur gi amuñu seen fay parce que ku ci ànd ba ñu tabaxal la kooku amoo fayam mais ñun tabax yi fii mun nañ ne ñun dañ ñoo dëddale ak suñuy wéyjur yaa ngi dégg dañ ñoo dëddale ak suñuy weejur tey mag bu fi gaañoo ay mag mënuñu ko yëkkati génne te mag yi rek am ci appartement yi ñun booy yëpp ci biti lañ nekk man sama yaay bu dundoon du ma nekk biir néegam yaa ngi dégg lakk-lakk ba mu amee fii barki Seydina Mouhamed góor yàlla yi booy sama moroom génération raq yi ñoo sacrifié bàyyi seen lépp ñëw xolol ñoo ko fay sapeur balaa moo yegg coow fay naa sapeur balaa ñu leen di woo sept heures huit moins nañ leen commencé woo 7 heures 8 heures ba noonu noonu noonu sapeur tegu fii tànkam bu doon góor yàlla yi fi nekk jàmbaar yi booy ndaw yi barki Seydina Mouhamed kon leneen lay doon te mag yaa ngi fi am pagaay ñeneen ak ñeneen kon nañu fonk ñun xale yi parce que jeunesse mooy réew su ma juumul ni ko gars yi di waxee. yaa ngi gis booy yi nga xam te leen di gis jàppee na ay vaurien wala di leen dëkkal fa ñu dëkk loolu du àdduna ñun tey kontaan nañ lool ci luñ ñu jàppale parce que tey. nit lu mu la defal defal yow da ngay ñaanal sa bopp dangay ñaan mënal sa bopp kon tey ñun ñaan nañ yàlla mënal ay nit rawatina ñi nga xamante ne ñun ñoo dëkk ak ñoom waaw mais daal amul problème bàyyi nañ lépp loxo yàlla fii lu yàlla tudd ma ci dara waaye wax dëgg neex moom xale yi nga xamante ne amuñu si bâtiment ñu ngi leen di sonal ñuy fanaan ci biti ñenn ñi dem luwe ji ba ci man mi may sonn sama ñetti mag dañoo luwe ci biti sama ñetti mag laa la wax fekk sama doom baay ñu ma bokkal ndey ak baay bokkul yaa mais naaj ñu ngi koy gérer mais tey bu du woon jeunesse bi bu du woon xale yi fii ñoom bi am kon leneen la ñuy wax man dara desul suñu kër lii ci biti lañ ma ko joxe caleçon laa génnee sama biir kër caleçon parce que affaire bi ba mu dindi affaire bi xoolal ba mu ba mu affaire ba mu déclenché dafa mel ni robine bu ñu taal wax xam nga dafay am doole dafa ma dugg barki Seydina su ma amoon maîtrise man may dee ci digg bi balaa maa génn balaa maa génn mais génn bi xal bi nee na vuf benn kon boobu sauver sa bopp rek nga mun mooy daw waaw kon noonu lañ mujjee daw génn wàcc suuf daw ba fii fii laa mujjee dugg ci aspe benn ba moom ma indi li yére bi daal lii sax xaw ma fan lañ ma ko joxee waaw mais sant yàlla. mu nekk lu jafe euh, est-ce que mën nañ xam lan ngeen di xaar ci ñi nga xamante ni ñooy bon volonté yi. ñi nga. bon volonté yi lan lan ngeen di xaar ci ñoom. waaw bonne volonté comme ni ma la ko waxee di leen tàllal loxo su mel ni suñu papa waaw ñu ngi koy talal loxo bu baax man mooy sama Macky Sall madame Dem ak xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di talal loxo man dem tamit woon ma ku ci mel ni xam nga kii Aliou Mara waaw ba ci Zahra waaw ba ci Kéba Kéba Kanté waaw sama papa la sama lépp la di woo tamit euh, Badara Kebe sama turando waaw di ko naan mu jàpp si waaw di woo ñëpp daal ilimaan la mel na waaw parce que tamit bu dul dara du force mais lii dafa metti kenn ñaanalu ko kenn pour man waaw kon bu dalee nit mooy loolu buñ si jàppee tamit yoon la waaw mais saa ñu ngi dund loo xam ne mënuñu ko wax nit yow munoo yeewu gaan fekk sa lëpp lakk yow dal sax munoo kaa génne caleçon nga génnee sa kër mais sant yàlla parce que bakkan mënoon na dem mais quatre personne moom daj nañ lu metti instant nañ ñaan yàlla yàlla suturaañu waaye li ko jëlee sama tante di ko jëlee sama mag bu góor di ko jëlee sama rakk bi nga xamante ne mu ngi ci état di ko jëlee sama doomam doomam bu ndaw bi instant ni nii yàlla ñu ñaan ak yàlla suturaal ñu maire beeg grand bi sax xaw na tane mais ñaar ñee yàlla moo ñu mën a suturaal barki seen naa Muhammad mel ni ñaari nit ñoo ci am ay blessures yu grave. waaw sonn nañ bu baax moom ñaar ñun ñee sax sonn nañ mais lépp loo gis lu ne day am loo xamante ne moo gën a nekk pire daal. ñaata ngeen woon exactement ci kër gi. six personnes. deux personnes ñoo mucc ñaar aw ci balkon mooy ki ki nga xam ne mu ngi ci état mu dafa jël bi moo aw ci état euh, ci ci balcon bi daanu heureusement fii ligne yi ñoo ko ci génnee bu doon loolu ak xaw a jàppandu bi nii da doon dee si place sa mag bu góor góor yàlla dafa langaamu xaw a lii nii wàcc wàcc noonu fexe ba dugg ci deuxième bi ci la affaire bi wàññeeku mu mun a cëppeelu man du ma fen man na ma daw def génn gér parce que man dama naroon dee sur place damaa wàcc premier escalier deuxième affaire bi ne bëm. est-ce que nañ xam gaz bi ban façon gaz. gaz bu bule la gaz bu bula laa yor bi ma ko chargé léegi saa motul 4 jours bismillah bi ma ko chargé léegi motul 4 jours damaa ñëw sama beeg yaaku ma tayal a dem parce que damaa demoon contact écrit ba bi ma ñibsee ma sangu mbee bi ma ñibsee ma tayal a sangoo noonu ma ne damay tàngal ndox xëppoo vite fait ci laa abu mu aal ma suba teel mu fëgg ma jox ma bég bi ma koy tijj action boobu dal ñu waaw loolu kese la. albarka ñu fàttali leen champion la moom aussi mi ngi ci làmb ji ñuy woo aussi tamit waa ahlu làmb ak képp koo xamante ni tey ji euh, bonne volante nga parce que leen dal nii lu metti la euh, ku nekk da nga koy xool sa bopp rek euh, xëy sa kër lépp laq. Euh, am tamit waxuma bien matériel yi sax waaye ñi nga xamante ni mooy nit yi fa dëkkoon euh, am ci ñu ci am ay gaañu gaañu yu metti euh, champion ñu lay masaw di la wax aussi tamit nga xool lépp loo xamante ni ñu ñu ngi lay ñaanal lépp loo xamante ni aussi yàlla yàlla na ko yàlla def mu ñi ñu nekk ci hôpital ba mucc yàlla taxaw leen c'est moom mi tege natu mu teggi leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sa dernier mot. d'accord ah, dernier mot waaw xanaa di leen jaajëfal waaw kontaan ci yéen di leen ñaanal jaam di ko ñaanal réew mi yëpp waaw di naan nag waaw comme nuñ ko waxee rek ñuy tàllal ñëpp loxo metti na lool waaye du lépp lañ mun a wax daal waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn femme en état de grossesse bu nekk en terme dafa tëb troisième étage mu wàcc. loolu metti na trop trop trop trop trop metti na trop ñu ngi leen di nuyu nag di leen gërëm di leen sant di wax ni képp kuy defal te yàlla tax nga jàppale leen nga jàppale leen ñu faju jàppale leen ñu lekk jàppale leen ñu naan jàppale leen ci lu ñuy sol parce que euh, desewuñu dara dara dara dara dara desewuñu dara. est-ce que mën nañ bi ban ban waxtu la am. ay 7 heures 7 heures la jéye bi 7 la man bi ma dégg bi ma séenee mbër def yaramu neen di daw di dugg suñu biro bi boobu dama ni sama ma gëstu sama borom kër ma ni est-ce que mbër wér na mu ni ma lan la man ni mu ngi génnee caleçon rek ma dégg explosion bi moom dafa daw balaa moo explosé waaw léegi nag bi ñu bu mu explosé kenn yóbbuwul daal ñun noonu lañ wàccee ñu daw ñu daw yaayaa boo ma jiitu bu mu yegg si fii fekk ndaw saa ngi wàcc yaayaay yuuxu dellu si man ma ni ko lan la mun di diw de tëb na étage bi te dafa nekk en état ñun ñëpp ñu yuux ma daw daal di dem foofu ma yegg téye si bopp bi mun tafa si damaa bëgg nelaw ma ne ko bu doo nelaw ma ne ko bul nelaw ma ne sama doom bi loo ko ma dem see wëri yaayam xam yaayam tam comme man rek diabétique la te def feebar ma daw wëri yaayam fekk moom bërëngu ne ci escalier yi di lakk ba yegg ci suuf digg ginnaaw gi yëpp yàqu yaram bi yëpp yàqu doomam bu am 5 ans damaa daj moom rek ma daw dellu ndax futteeku na boobu ba ko cuy waaw futteeku na ba ko cuy waaw ñun ñëpp ñu daw ñu daal daw léegi ñun taluñu ay lakk bi lu muy lakk xale yu góor yi moom fay nañ lakk bi ba pare ñu door a wooyu pompier ñun taluñu woon loon dañoo tàlla rek luy sauver ñi ma dem fëgg clinique bi suñu kanam clinique bi ñëw commencé de première soins yi pour pompier yi mun koo jël teg ko ci balankaar bi ñoom tam ñu ngi koy sant di ko gërëm docteur Maymouna ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw clinique Abdou Aziz Sy ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw bi ñu nemmee ko état bi bu ñu leen mujjee tabaxalaat euh, acte deux bi euh, yàggul mu mel ni que jëluñu woon ay jumtukaay li ci mel ni ay extincteur pour bàyyi ko ci li nga xamante ni mooy étage yi. waaw euh, loolu yëpp de wax dëgg yàlla madame Oven xalaat na ko ñu ngi ci doon def ay réunion ñu ngi ci doon def ay réunion pour appartement bu nekk. lu mu war a am appartement bu nekk waxoon nañ te nee nañu appartement bu nekk war na am trois appartement bu nekk war na am trois ñu ngi si doon waxtaan waaye xëy na nag jàmm pexe yàlla.